ñoom ñu ne dañuy topp Macky Sall ci ni mu doon jëfee Mimi Touré kañ la tàggu Macky Sall keroog ba mu ni ko doo président assemblée nationale dëgg la am du dëgg Amadou Coumba Ndoffène Diouf mi naan bokk na ci ñoom kañ la tàggu Macky Sall problème bi am kay mooy et c'est des politiques gannaaw yow yaa ngi woon gëm sa bopp

maintenant nag li le président Macky Sall wax aussi ci emprisonnement on l'a suivi de très près nous avons doon déglu ñoom Diallo qui portait le combat ci li ci a ba Macky Sall intervenir je parle à la télévision vous ngay xam ne li may wax Diallo bi may wax xam na wax de clémence pour nous bàyyi parce qu'il y a des erreurs qui ont eu donc lan moo xew ba nit ñi jamono yi victimisation la bokk pour nga il faut nga victimiser attaquer Macky mais le combat est-ce que aussi n'est pas légitime. c'est-à-dire organiser sous forme de collectif. c'est le droit. C'est mais droit pour les Japonais, nous nga

c'est pas normal maintenant est-ce que nous sommes dans le droit de réclamer justice par rapport à ça et puis ki nga ramené aujourd'hui c'est vrai que l'État est une continuité il fait nekk ñu ko def mais ki fi Il daf ci deful aussi pour que les choses soient claires. attendez c'est que une bañ ngeen hmm. réclamer justice et incriminer Macky Sall c'est deux choses différentes. Hmm. l'État est en train de faire justice. tu entends le nouveau président de la République on va indemniser.

s'il te plaît je voudrais pas que tu me coupes parce que je te coupe pas. allez-y merci. Nini Ken kenn gënuñoo bëgg réew mi. Mhm. bakkan rek suñ continuer pire. je l'ai dit à l'Assemblée et je le répète waxuma la benn bakkan Ken ku sa loxo c'est trop dans une démocratie. Mhm. Massama ay bakkan rot. le pays dem nañ ba armée bee koy jël du ko jël Tol nañ ci fitna à un niveau tel il fallait prendre une décision le président Macky a été très courageux ku falu du Faye. Mhm. Ousmane Sonko c'est les pires ennemis de Macky Sall politiquement si on permet. pourquoi ils sont pas revenus sur cette loi d'amnistie mhm. pourquoi parce que c'est un acte juridique oui on aurait aimé mais mais ne nañ revenir on aurait voulu mais c'est un acte d'accord si le président le veut revenir mhm. Mhm. ça dépend de leur volonté Les des gens encagoulés qui ont des problèmes personnels avec Macky Sall utiliser des superfuges On lay bañ ñun man akama justice akama comment juste mais il faudrait pas que des gens parce que j'étais personnellement avec Macky d'utiliser des faux fuyants pour porter d'autres combats il faut qu'on soit courageux Nous, politiques, politique politiques... politique c'est parce que ñii muy Mimi Touré rek muy muy Coumba Ndoffène Diouf ak muy ñeneen ñeeg ñëpp c'est parce que dañu am problème personnel ak le président Macky Sall. très bien dama ne justice fi ci réew mi amna ñu ñu fal ñu war ko dox. donc yow japp jàpp ils ne sont pas victimes. kookal la maanaam ñoom le collectif là. parce que mom def na fi ay révélations ci walu wàllug euh, li nga xamné mom moy mooy contrat les walu yeeg euh, non foofu am na erreur foofu hein, am erreur ki ñu inter c'est le commissaire mo xamné ki ñu inter. ki euh, ñu ñu teg ko ci loxo. waaye nek ko président Macky Sall yégué il a demandé une mu la man wax. Ah, je peux te donner des noms qui vont confirmer mon ngi won ci biir kasso bi. Mm-hmm. Bougane gey dani je le cite. euh ah, ce nom tudd Aliou Diallo souleyman Aliou Diallo je le cite. Autre Africa. waaw Feu Ba qui est xaritam te décédé j'ai oublié le nom parce que c'est un dossier que j'ai suivi parce que bureau migration daf mo mo sa intéressé ils ont agi ils ont fait des actes le président Macky Sall a agi ñu bàyyi ko waxantuwuma tu les invites je donne leur numéro tu les appelles maintenant si su nga un problème bu dul ak Macky Sall yéen la ak mom mais buñ utiliser loolu amna ñu ñu fal mu le président de la République tudd Diomaye Faye ci waxam léegi nak dégg na nee ils vont revenir sur la sur la loi d'amnistie. bien sûr ça, mais mais, mais c'est pas la première fois c'est pas la première fois c'est pas la première fois qu'un chef d'État quand même. Mhm. soit poursuivi. dégg nga la manam li ñu def ni ci ay collectif ak yenen gis nañu fi. Gambie gis nañu fi yeneen dëkk may rek ma daaneel fi may daaneel. Sénégal c'est la. fi may danel ma ni. moom jox nañu scoop jox nañu scoop nee